asalaamualeykum wa rahmatullahi wa bokk yi nu fas yéena ànd ak ci téere sëriñ Suhaybu Mbàkke bi mu tuddee Qurratul Ayn nu toll ci bunt bi jëm ci nawaafil yi rawatina naafilay weeru koor nu fas yéena ànd ak yéen guddik ñaareel gi sëriñ Suhaybu Mbàkke radiyallahu anhu dafa wax ne ñaareelu guddi ga ku ca julli juróom benni rakka bu ci ne faatiya ak inna aataynaaka fukki yoon ñaareelu guddi ga ku ca julli juróom benni rakka bu ci ne faatiya ak inna aataynaaka fukki yoon des na ko jéggal bakaram yep bala mo joge famako don ko defe te des na ko bindal bay junni haj ak junni umra, ak yoolub ko saraxi junni dërëm mel na ni yit ko seti junni ñu wop ak ku gungé junni néew ak ku jang ab kamil te des na ko bindal yitam tiyaaba ju ëpp jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa